nous allons régler définitivement cette affaire incha allah mais ku ci bëgg a jeter de l'huile jàpp ni mën nga ko politiquer nous prendrons toutes nos responsabilités pour que tu ailles pourrir à Rebeuss parce que loolu bokkul ci politique. la ca des nag mooy vous savez ce qui nous attend ce qui c'est les élections législatives. Je vous avais présenté des candidats. Est-ce que Guy Marius Sagna a été un bon député? Est-ce qu'il a été un bon député au Sénégal? Est-ce qu'il a été un bon député à la CEDEAO? Est-ce que si vous aviez voté à 40% pour lui, est-ce que vous n'allez pas voter à 100% pour lui cette année? Est-ce que Mme Oulimata Sidibé n'a pas été une bonne députée Est-ce qu'elle ne Est-ce que M. Bakari jéju n'a pas a été un bon député Est-ce que Alphonse Sambo a été un bon député Kon, on vous avait donné présenté des députés. Vous avez voté pour eux. Ils ont été à la hauteur. Mandabi, Yegoul, deux ans à la On les a reconduits parce qu'on sait qu'ils vont dignement représenter la région, mais ils vont dignement représenter le Sénégal, au Sénégal et hors du Sénégal. Nyanche Yoko aussi, pour qu'ils viennent compléter. Que ce soit ma jumelle Ousmane, Walla, Awa, Nyom Nyep, je ne doute pas qu'elles seront d'excellentes députées qui représenteront la région à l'Assemblée nationale. Mais l'enjeu dépasse ça. Quelqu'un l'a dit ici. Dafa am des acteurs politiques yoo xam ne pendant des décennies on leur a confié ce pays ils l'ont mis dans un gouffre ils ont pillé le pays ils ont ruiné le pays ils ont préféré les intérêts étrangers aux intérêts sénégalais ñooñu bëgguñu seulement ñu ne ils ont perdu l'élection mais dañu bëgg suñu génnee ci élection bi leur score sera tellement ridicule que beneen élection buy ñëw du ñu ñeme ñëw réclamer le suffrage des Sénégalais. Et c'est pourquoi il faut sortir massivement voter. Massivement, c'est important. Nous voulons avoir ici à Ziguinchor parce que ñeneen ñi dama leen fixé ay 70 pour cent parce que damay xool nu mu demee mais fii je veux minimum 90 à 95 pour cent dans toute la région nous voulons au moins 90 à 95 pour cent est-ce que vous me ça kon lii mooy enjeu élection bi et suñ ko defee on aura donné au président Diomaye les moyens de gouverner on m'aura donné moi en tant que premier ministre Sénégal les moyens de dérouler le programme en ce moment tout ce que j'ai lu ici dans quatre ans et demi ñu war a dem ci élection je reviendrai ici et je vous dirai est-ce que am na lu ñu ci def lu am solo ou pas et vous vous apprécierez c'est comme ça que fonctionne la démocratie J'avais oublié un point. Quand je parlais du, de la question de la paix, yéen ñëpp dégg ngeen yi un livre bu ñu bind ñu ne c'est une Française qui a écrit ça on en a discuté avec président Diomaye ce livre-là personne n'en fera la promotion ici au Sénégal si cette Française veut écrire elle n'a qu'à aller écrire sur la Corse qui demande son indépendance à la France Elle n'a qu'à aller écrire sur la Nouvelle-Calédonie qui réclame son indépendance, mais elle n'a pas à sur le Sénégal. Et je veux à la France, je pas qu'est-ce qu'il y a derrière cette affaire. Parce que la France avait témoigné dans les années 90 avec Jacques Charpy en clarifiant la question de l'appartenance totale et intégrante de la Casamance au Sénégal. Maintenant qu'il y a un régime, comme je l'ai toujours dit, qui n'est pas anti-français, qui est pro-sénégalais, simplement. Un régime qui dit nous voulons notre souveraineté. Nous n'accepterons plus d'être des valets de qui que ce soit. On nous sort un livre et puisqu'il ne peut pas revenir sur leur témoignage, il ne peut plus parler d'indépendance, il glisse sur la notion d'autonomie. On, on, on ne veut pas d'autonomie. C'est pas ça la question. Nous sommes un État unitaire de, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les mêmes réalités vont s'appliquer sur chaque portion du territoire national. Et ce livre-là ne sera pas autorisé au Sénégal, ne sera pas commercialisé au Sénégal, parce que duñu nangu des di jóge fële avec un projet de déstabilisation pour venir nous parler de ce qui nous concerne, nous, Sénégalais. Si la France veut donner des archives, elle n'a qu'à nous donner les archives de ces exécutions sommaires au Sénégal pendant la colonisation. des guerres qu'elle a menées ici, des tortures qu'elle a menées, des travaux forcés. C'est ça qu'on attend de la France. Qu'elle nous donne les archives de Tiaroy 44, mais nous des archives sur une prétendue autonomie de la Casamance. Donc, nous avons ça a été très long, mais je peux vous dire une chose. Ce pays va changer et il va changer radicalement. Nous allons bâtir un nouveau pays. Nous allons bâtir de nouveaux fondamentaux. notre développement. Nous allons renforcer notre unité nationale. Et nous le ferons avec chacun et chacune des Sénégalais. Je vous remercie. Assalamu alaikum.